mbokki internet yi safoo setaan AGT news dalee nag jàmm ci xibaar abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am xibaar yu wér te wóor Coura Macky pël ca assemblée nationale ba ak ab saak boo xam ne form pistolet la yor loolee la ñëpp di waxtaanee nekk loo xam ne moom daf koo def joxe image ci moom ki mu doon ak la nga xam ne moom la doon woote woo depuis le début ba tey ne moom mooy ki nga xam ne fa muy dem fu mu mënti nekk dafay yor ab revolver am loolee mooy li nga xam ne moom la fa dikkee daal di koy présenté Sénégalais yi nekk ab député boo xam ne bi ñëpp ne moom fal nañ ko gannaaw ba ñu génnee yenn député yi mu dugg ñëpp ci am ab déception ndax dañoo jàppoon ne moomee amul ab place am ca biir assemblée nationale ba ñëw na tàmbali na ab liggéeyam daal di indaali itam ay signes yu bëree bëri ci li nga xam ne moom lay dundee question bi nga xam ne moom la population bi ñëpp di laaj ci mooy la nga xam ne moom wax na ko te dëggal ko ne fu mu toll dafa yor ab revolver am la nga xam ne xewoon na keroog ci assemblée nationale bi muy xëccoo xiiroo ak ŋaayoo baa bu fa amaatee moom mii du génnee la nga xam ni moom lay denc di ko yóbbu foo xam ne fa la jëm saa su nekk lu ci mënti am règlement intérieur bu assemblée nationale bi war nañ cee informer tout un sénégalais ba dina xam lan moo fay xew exactement par rapport ak comportement boobu nga xam ne Coura Macky moom la bëgg a adopté mbokk internet yi safoo setaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu wér te wóor